am mbégte gu yaatu yaatu di feggoog yéen mbokku net bi TV Sénégal ci euh, xibaar yi tey ci euh, talaata yi mok ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru euh, décembre dañuy doori xibaar yi rek ak lu ñeel wàllum politique président de la république Macky Sall ak lu conseil des ministres gi nga xam ne daf ko rek daal di a wàcc ak moom ca Tambacounda waaye itam fas yéene fa rek daal di amal ay inauguration mbooloo mu takko takku mu ñu gis ñu di koy teertu ca Tambacounda ginnaaw mu nekkee makkaanu Sidiki Kaba di ministre des forces a la nga xam ne nag moom moo di boobu lépp teatu ah, moom moo nekk ab ah, débat ci ah, Sénégal jamono jile ñu jàpp ne rek dafay def ab campagne déguisée ngir yoonal lu jëm ci wàllum troisième mandat mbooloo mu fa teew nag yor ay pancarte ginnaaw ñaari homme politique yoo xam ne ay euh, leader yu euh, APR lañu euh, ña nga ca Tambacounda moom moo nekk fa nga xam ne rek moom moo di seen makkaan ah, te ku nekk ma ngay wane boppam rek ne maa mën noonu rek la ñu gisee le président de la république Macky Sall mbooloo mu bari mu ko wër ku nekk di wane boppam waaye itam la ñu gën a jàpp ci seen i kàddu moo di di sàkku le président de la république Macky Sall daal di am lu ñeel wàllum troisième mandat loolu moo rek moo nekk débat ba nga xam ne moom la ñu fa a déglu. sondage la bu ñu bëgg a def euh, wala dañu bëgg natt rek lan mooy nekk réaction mu sénégalais yi ci bu président de la république Macky Sall waxee ni dafa bëgg euh, troisième mandat yenn ci kilifa yi ñoom nee nañ doon mënuñu ci yàbbi tant que le président Macky Sall àdduwul euh, ci le 31 décembre bi nga xam ne ci la ñu jë mal ci lu ñeel discours de la nation bi nga xam ne moom lay amal te war a mën rek daal di àddu jëmale ci lu ñeel wàllum troisième mandat dana nekk candidat wala du ko nekk rek mën nañ caa xam dara le 31 décembre incha allah 31 décembre googu la ñuy desandi yemu diis lu ñeel ku jege que seenu stratégie bi nga xam ne teg nañ ko concertu casserole bi nga xam ne ko ko jiitee du kenn ku dul Ousmane Sonko leader Yewwi Askan Wi fa yéene rek dal di ruube président de la République ci euh, heure bi nga xam ne ci la fas yéene daal di àddu jëmale ci askanam Ousmane Sonko ne moom du déglu euh, li nga xam ne moom moo di discours président de la boobu wala sax mu daal di tax ñu waxtaane lu ñeel concertu casserole boobu ci ab président boo xam ne rek amalul benn njëriñ askanam wala respecté wul askanam ba tax ñu ne dañuy ruube la nga xam moom moo di euh, boobu lépp discours ñenn ñi nga xam ne ñi ngi ci sax d'accord ñoo ko Ousmane Sonko bokk na ci Cheikh Abdou Bakke Bara Dolly waaye itam ñeneen ñi nga xam ne jot nañoo ŋàññi Ousmane Sonko ci décision bi nga xam ne moom la rek daal di jël ci ñàkk respecté nation a tax président Macky Sall di amal ab discours bu carré daal di roube ba ci sax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci pouvoir bi ne ah, du ñu bàyyi benn yoon lu ni di am ndax su boobaa rek dafay ñàkk respecté li nga xam ne moom moo di ah, président Macky Sall lu ni mel moom moo nekkub débat boo xam ne fi ne ñëpp moom la ñuy waxtaanee mu di concert u casserole bi nga xam ne Ousmane sonk daal dina koy ah, mëbët ba ci sax démb kàddu yi nga xam ne àdduna ko ci ab déclaration boo xam ne rek dafa mel ni moom la daal di engagé waaye nekkul engagement yoo xam ne waa yeewi ñoo ko jël mais moom ci boppam mu di leader bu Pastef Aïssata Tall Sall di ministre des affaires étrangères àdduna jëmale ci euh, lu ñeel troisième mandat gi mu mel dafa daal di pëtax ca ndëgg sarax gañ ko tegaloon ginnaaw bu mu yëkkatee kàddu yey yàbbi rek ci lu ñeel troisième mandat gi président de la république Macky Sall mu mel daf doon calculer euh, scientifiquement ndaka rek la mën président de la république mën a euh, amee troisième mandat ndax daal dina koy pacc pàccee ci ñaari boor mu di loo xam ne rek ay wax la ak wax yu ñu war a tënk maanaam jëfi tey bu méngoo ko waxi démb. waaye itam constitution bu nangu ni que présidence de la république mën na am troisième mandat mu mel ni ñoom ba tey rek ci wàllum calcul la ñu nekk ak kàddu yi nga xam ne Aïssata Tall Sall wax na ko def na bës lool waaye itam yenn ci ay kilifa sax jot cee rek daal di àddu ci wax ji nga xam ne wax na ko buñ ñu sukkandikoo ci tribune ak Walf Quotidien mu mel ni ñoom ñaar seeni titre dafa daal di rek xaw a am ak woroo ñu wax ci leneen lu ñu ñeel askan wi commissariat bu Pikine teg nañu loxo ay nit yoo xamante ne ni ñu ngi leen doon yàgg rëbb ci wàllum drogue dure ñu naan ko crack te ñu koy rek euh, jëfandikoo euh, mu di benn réseau boo xam ne dañu doon jaay boobu lépp drogue dure ca euh, Pikine jot nañ ca teg loxo ñaari nit mu di ndawi commissaire Mame Arouna Ba yi nga xam ne ñoo leen rek daal di jàpp waa ji nga xam ne moom la ñu jàpp i coli akub coroom ñoom ñaar ñëpp jàpp nañu leen coro bala la ñu njëkk a to toog noppi toog caa teg rek i coli ginnaaw bu ñu leen jàppee itam avoué nañ ñoom ñaar ñëpp yëpp euh, kenn ko ba ñu ko jàppee moom moo avoué keneen ka ca des ñu teg ko loxo noonu rek la ñu daal di gën a yaatali enquête ba ngir mën a xam ñi taqee wala ñu laalee ci boobu lépp drogue dure nga xam ne laataa ñu leen di jàpp rek dañu amoon ab soupçon nekk euh, bu ñu euh, daal di jàppee kenn ki rek euh, dinañu mën a daal di démasquer boobu lépp réseau nañu ko programmé woon noonu la rek daal di amee ba ñu leen jàppee itam fekk nañu ci ñoom vingt cinq grammes cocaïne ak treize pierres yu crack yi nga xam ne moom moo di drogue dure bi ginnaaw loolu daal nañ leen di placer en garde à vue le temps que rek ñu leen di déférer ci kanamu procureur bi. lu ñeel mbirum euh, Kounkandé ak Ibrahima di ñaax ñi nga xam ne yoon teg na leen loxo ci wàllum charlatanisme ak escroquerie euh, euh, bu dee Kounkandé mi nga xam ne xam nañ ko lool ci Sénégal ak Ibrahima ñu gën ko xam ci sant yàlla tey rek lañu leen di déféré ci kanamu procureur bi ngir ñu daal di tontu ci laaj yi ñu leen war a laaj rek ci li tax yoon daal di leen di teg loxo ba tax ñu nekk ci guddi gu bët setagul wàllum escroc goo xam ne rek sept million benn sénégalais bu nekk ci États-Unis euh, moo leen joxoon sept million ñu ne dañ ko koy soppeel xaalis boo xam ne euh, dana toll ci sept cent million ginnaaw bu ñu encaissé xaalis boo ma noppi rek ni euh, fourage daal di xëddeen daal di daw kenn gisatu leen waaye ci boppam bi mu ñëwee rek la daal di porté plainte ba yoon daal di leen teg loxo fi nañuy xaarandi déferment bu kunkande boobu ak lan mooy nekk ci pandaw boobu lépp dossier Euh, li ñuy euh, jeexalee euh, xibaar yi rek mu di lu ñeel mbirum wàllum tàggat yaram ak Aliou Cissé ginnaaw bu ñuy xaarandi moom Aliou Cissé rek mu tekki ay jaajam daal di bàyyi équipe nationale bu Sénégal may beneen coach su mu ñëw euh, ca ba Sénégal daal di euh, jugee ci coupe du ba léegi loolu nekk ab débat boo xam ne rek jot nañ kaa daal di euh, waxtaanee ci réew mi mu mel ni débat boobu nag ki nga xam ne moom moo jiite fédération sénégalaise bu football di Augustin Senghor daal dinay campé débat ba ba noppi tëj gémm ñu ñu doon wax ne Aliou Cissé dafa war rek daal di démissionné ci ab débat boo xam ne ma ngi ko amale ci 2STV ne Aliou Cissé demul tey demul ëllëg dafay daal di toog ba ñiit li nga xam ne moom moo di contrat am fi léegi deux mille vingt quatre ca la ba di jeex waaye itam fas yéene naa daal di yeggale ab liggéeyam comme na mu ko rek dal di uh, xamle uh, mu ne loolu nag il faut mu wax ko pour ñi nga xam ne chaque fois ñi ngi wax ne Aliou Cissé dafa war rek daal di tekki ay jajjam daal di bàyyi équipe nationale bu Sénégal uh, ba ci Coupe d'Afrique des Nations bi xam ne moom la ñu dëgmal ci li nga xam ne moom moo di ay. Euh, coupe d'Afrique des nation bi nga xam ne moom la ñu war a rek daal di bokkaat ci ay jongante Aliou Cissé dañ tey rek daal di a ah, bokk waaye euh, li nga xam ne moom moo di euh, liggéey bi mu liggéey c'est un travail colossal boo xam ne amul dara luñ ci wax moo tax Sénégal jël coupe daal d'Afrique bi ba yóbbu leen coupe du monde kon tey duñu ko teg benn fitna wala ñu koy rek jéem a pamti pamte ngir mu tekki ndombal tànkam dañu koy bay ba contre xam daal di jeex fileek 2024 mu nekk kàddu yi nga xam ne président bu fédération sénégalaise bu football di Augustin Augustin Senghor moo ko rek dal di ah, xamle a mbokk yi ñu doon teewlu ci net bi TV Sénégal jërë ngeen jëf ci ànd gi ngeen doon ànd ak ñun ah, ci bile jotaayu xibaar ah, ci kanam tuuti incha allah daañu àndaat ak yéen ci beneen jotaayu xibaar ak yeneen i ponk yu ñu war a waxtaanee jaa ngeen jëf ci kanam incha allah.